yi nga xëyee fësal turbine lam ñu jukkil yéen kaay gii di xëyee dellu siwaat ci coalition Benno Bokk Yaakaar biñ ne jamono ci neexul ba neexul waaye mu ngi ci ay jafe-jafe yéen gi moo xëy fësal lu ni mel ndax candidature Amadou Ba ndax fu ci mel ne la ci Jolof ñoom dañoo lànk ni ànduñoo candidature boobu leen ndax Aly Ngouille Ndiaye euh, Fouta Abdoulaye Daouda Diallo Fouladou euh, fële ci Abdoulaye kii di euh, Mamboy Diawo mhm. yéen a kaay di ne lii nag bu dakkul ba mooy daal Amadou Ba ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar kon duñu am benn chance jëmale ko ci élection présidentielle yi di ñëw noonu la ko a xëy fësale waaw bu dee yéen a gii di la mandat dafa xëyee dellu siwaat ci Bokk Yaakaar bi ñu ne jamono ci mhm. Euh, président Macky Sall da ko jël daal di koy teg ci loxol Amadou Ba yéen kaay gi ne moom président Macky Sall nag donte la sax jox na mbir yi kii di Amadou Ba waaye moo nekk ci ginnaaw maanaam daal moo yore girdon bi euh, donte la sax bokkul ci élection présidentielle yi ñëw pour troisième mandat waaye Macky Sall la sans maanaam Amadou Ba sans Macky noonu la ko yéen gi di la mandat xëy fësale Le Soleil kamu dalal Abdoulaye Boudé yéen kaay gi di Le Soleil dafa xëyee dal Amadou Ba muy jëwriñ ju njëkk ji nekkit candidat coalition Benno Bokk Yaakaar ci laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak suñu naataango yi moom Amadou Ba ma ngay dellu siwaat ci confiance nga xam ne président Macky Sall am na ko wax na tamit ci yéene gi mu am ngir gën a yaatal plan Sénégal émergent ba kenn ku ne mën cee gis boppam noonu la ko yéene kaay gi di la Soleil xëy fësal Abdoulaye. yéene kaay di l'Observateur yéene kaay gi ne mu ngoog Amadou Ba dootul bokk ci gouvernement bii di ñëw. ndax njiité réew Macky Sall xam ne na ko ci conseil des ministres bi mu amal ni ki démb nee na ci euh, ndetteelu semaine bi dana amal remaniement maanaam daal dana ak ay yeesal goo xam ne dana ko indi ci gouvernement bi mhm. loolu kon mu ngi ko xam ne ci xelu xelukaay juriñ bi nga xam ne ni euh, doon nañu ko amal foofee euh, ca palais présidence enquête lu mu ñu enquêtal bu dee yéene kaay gii di l'enquête dafa xëyee amal ab taxaw seen la jëmale ko ci candidat fantôme bu ñu ko waxee nag mooy Karim Meïssa Wade mhm. kaay gii donte la waa Parti démocratique Sénégal ña ngay ña ngay jaay carte ne lu nekk ña ngi koy def ndax ñoom gëm nañu ne Karim Wade mooy seen candidat waaye ab candidat la boo xam candidat fantôme la tax yéen gi xëy samp bëgg a xam ab candidat fantôme moom naka a def am ba gañ élection noonu la ko yéen kaay gii di euh, na ci critique beneen bu nekk di di wane boppam moo di Thierno Alassane Sall yéen kaay gi ne neexul ba neexul waaye Thierno Alassane Sall jamono ji toogul fu nekk ci réew mi dem di gis ak askan wi moom Thierno Alassane Sall nag dal na ci ko politiciens yi nga xam ay milliardaire lañu wax na tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy dund jamono ji mu ngi ci yéen kaay gi critique moom la ñu fekk ci l'info waaw l'info moom da koo gën a yaatal ah, wax ci déclaration de candidature euh, kii di euh, déclaration de candidature à la présidence mm-hmm. euh, à la présidentielle donc Thierno Alassane Sall moom daanaka soobu na ci mbir mi wax na nag ki politiciens yi nga xam ay milliards et la ñu Euh, te ñu jàpp nekk wuñ fa lu may seen bopp wax tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne ndaw ñu koy dund jamono ji mm-hmm. ba tax mu leen di jaral ñuy mbëkk gaal yi di ñàkk seen bakkan ci géej gile wax na ci njëgu dund bi wax na ci hôpitaux yi seen melokaan ba ci ñaago ba ci école yi mm-hmm. noonu la ko yéene kaay gii di leen fa xëy fësale le peuple quotidien lu mu fësal loterie nationale sénégalaise am njiit lu bees Lat Diop fa dexoon dàq nañ ko yéene kaay ne moom Lat Diop ndax nekkul ne Euh, daan gi nga xam ne ko daan fële ci diwaan Guédiawaye moo waral lu ni mel mi ngi ci yéene kaay di peuple la. man googu yéene kaay génneen 24 wax ci musiba ji am fële ci euh, al alxawus alxawaa xawma alxawus. ca nekk fële ca Maroc ba lu solo ñetti junniy doomu aadama ñàkk seen bakkan Serigne Mountakha Bassirou Mbacké euh, maa ngi koy mettitlu ba tax sax mu jël lu ci tolloog téeméeri million ci suñuy koppar jébal ko ambassadeur bu teewal réewum France fii ci biir réew mi. Mm-hmm. Euh, lépp rek ngir bokk ak ñoom métit bi noonu la ko yéenekaay gii di 24 heures xëy fës yéenekaay bi di Le Quotidien beneen musiba am fii ci biir réew mi ma nga amee fële ci Golf Sud ab taax moo fa mabb ba lu ci ba kenn ñàkk kenn ñàkk ci ba kanam yéenekaay yi nag mbir yi nag mënoon naa gën a jéggi daal su fekkonte ne ñu nekk ca kër ga xëyuñu woon ñoom ñëpp liggéey yi loolu moo tax sax bilan bi xaw a tuuti waaye daal yéen kaay gi dafa xëy dellusiwaat ci lu ni mel ne lan moo tax baax ak tax yi di mab rek hmm. yéen kaay kon ci loolu la xëy dellusiwaat. Euh, euh, le stade. stade dafa yé dafa xëyee dellusiwaat ci match Sénégal Algérie euh, nga xam ne ni Algérie dafa daan Sénégal solo ak benn bal ci benn yéen kaay gi nag xëy dellusiwaat amal ci am taxaw seetlu jëmale ko ci li baax ak li bon ci suñu équipe nationale bi lee jox nañ ci nag ay borom xam-xam kenn ku ne jox na ci xalaatam hmm. mu ngi kaay gi di Star Abdoulaye wax ci combat a dox ci diggante Ama Baldé ak